yëngooti na ay sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang be. وقت عند سرسارا نور دندون سقط عند سرسارا سرسارا نور دندون عند سرسارا نور دندون سقط عند سرسارا سرسارا غنار لو dan bono so de zar zara sara lori dan bono so sampatin na inda sar zara yalla hamdi wa suguri liman libi sara lori dan bono so loori jandono soo inno sarsara yalla hamdi wa suguri liman layla li bi sara loori jandono soo illa la layla layla doona soor yëgin da sar saara yalla law samaayi warit laylila waanin bilaa riqatin waa mustaadili min fami yalla laylila samaayi warit waanin bilaa riqatin mustaadili min bani bani demaana saara على الإله كل لدى لا إله عبار نقل لا إله إلا الله من ارتعلنا وفي أجم من زارا على الإله كل لدى عبار عبار مكرمة سيدنا محمد من ارتعلنا أجم أجم أجم من زارا كلينا الذين إلى لا إله زار خبر لا إله إلا الله دارت الفارق دارني أو سارا إلا الذي لا إله سرا سرا قد خصص سرا زيارة الفارق دارني أو سارا علينا الذي لا إله سرا قد خصص زيارة الفارق دارني أو سارا إن الذي nay laal kenn ku ko def sasaana xad xasado kenn ku ko def siyaaratil faaro ko def di nga am daare ni aw saara ay na la si إله سرسار غدا لا إله إلا الله سيارة المارخون دارني أو سارة إن الذين إلى كما سدف سرسار غدا خسدو ننكو قدو سيارة المارخون نبينا أم دارني أو سارة ألا لكن بكن سرمدا وجل مسيري سا جوف الفرا للورا مثل محارم بنا bi nga ñibbisee lanu am jofal fara lil wara bi nga ñibbisee lanu am jofal fara lil wara ki nga ñibbisee lanu am jëfal faraalin wara bisal maari ki nga ñibbisee lanu am jëfal faraalin wara للورى للورى جوف الفرى للورى مثل ما جوف الفرى للورى مثل ما وكي موي مامي آدم آدم مامم ليلة تيري وقت موي مامي آدم آدم مامم ورنا يلا مامي آدم مامم محمد mooy maami Adama maamam wóor na yàlla woo. mooy maami Adama maamam wóor na yàlla mooy maami Adama maamam wóor na yàlla yaa rab kullu walidin wa ma walad ana bi walidin wala sabi wala waat hmm. yaa rab kullu walidin wa ma walad afatani ma la yakunu li ahad ah. yaa baatinan laysa loo kufan ahad. est-ce que. habli bi xaqi qul walaaw ahad. est-ce que. ibaatu fardin xayra muxnin muntaxat est-ce que ku yor bakkan ah. war nga ni jaajëf borom tuuba ku yor bakkan war nga ni jaajëf borom tuuba ku yor bakkan waxal jërëjëf maam borom tuuba ku yor bakkan war nga ni jaajëf borom tuuba ku yor bakkan santal ki la moom mooy Serigne Touba ku yor bakkan war nga ni jaajëf Alaaji Maam Balla ku yor bakkan waxal jërëjëf maam ma bala bi yoole ku yor Bamba daa gore daa maandu bu ko neexoo kenn du yor satala kenn du kaalaw gore leen sant sëñ Tuuba ku yor bakkan war borom si Ahmadu Bamba daa gore daa maandu neexoon kenn du yor satala kenn du kaalaw gore sant sëñ Tuuba ku yor bakkan war nga di jaajëf borom Tuuba sëriñ kenn ku ko kennal mu kennal la ba nga daj fa la sant sëriñ Tuuba ku yor bakkan war nga di jaajëf Tuuba Seex Saaliw Mbàkke sang bi sa ay gidaane ana soppay sëriñ Saal sang bi sa ay gidaane kaw ci bay saal sang bi yow sa ay gidaane santante moo ci des gore leen sant Sëriñ Tuuba ku yor bakkan war nga borom Tuuba yoonu Sëriñ Bamba ku ci aw doo gëlëm te doore ka doo daje gaynde gula naa fi du yoonu Tuuba ku yor bakkan war nga borom Tuuba waaw jili ga ca maa yomba kori ga jàppale. màggal gi fay ko gore leen sant Serigne Touba. gi fay na ko gore leen ku bëgg màggali defal nii sa loxo màggal gi fay na ko gore leen sant Serigne Touba. màggal gi fay na ko gore leen ku bëgg màggali defal nii gi fay na ko gore leen sant Serigne Touba. màggal nu def. loonu nu def. loonu ay mu bàyyi la lu nu digal nu def nga toog ci jal bi yan oyof yaay Sëriñ Tuuba nga toog ci jal ay sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang be